dalli jàmm mbokk yi ci seen xibaaru bés bi ajjuma yemoog ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin atum 2024 dañ koy door ci lël bi nga xam ne amoon na démb ca mairie bu Thiès ñu tuppe ko session ordinaire te nga xam ni maire ba docteur Babacar jóg ak conseiller ñoo ko amaloon muy waxtaan woo xam ne daal dañ ci doon fësal ay ponk ñeel nag ay projet ak ay collaboration yu nu fas yéene amal ak yeneen maire yi rawatina ba ne ca Burkina Faso lu nu mel nag sax na sax ba docteur Babacar Diop def ab prox ndollu daal di yëngal dossier boo xam ni daal boo sàgganut euh, na mu defoon Mickey Land ak i Kajoor Glace foofu lay mujjee ji ak bile dossier ndax nag nee na conseil de ville bi daal dañoo taxaw fas yéene fuqar ñi euh, six mille th euh, nuy nekk titre foncier boo xam ni Thiès ñoo ko moom mairie Thiès ville nee na de loolu moom dinañ ko foqar ci université Iba Der Thiam bi nekk ci diwaanu cees kon nag jamono bile mën na ni daal saxaar mu ngi xeeñ ci diggante euh, jaraaf bi ak euh, recteur bu université Iba Der Thiam bu cees ndax nag nee nañu daal pale des congrès boobu nga xam ni moomeelu askan wi la ndax mairie bu cees lañ ko fàggul nee nañu daal loolu dañ leen ko àlloon ci atum 2010 ndax nag signature yi moom feeñ na loolu ci mbir mi lu ni mel nag ab résolution la boo xam ne daal conseil de ville bi fësal nañ ko ni ki démb ci seen lël bi ñu doon amal di artu université mu gaaw roñ ay bagaasam bala yi ngir di jaxasoo ndax ñoom pare nañu pour exécuter seen euh, gis-gis boobu nga xam ni mooy gis-gis bi wóor ci ñoom te itam mu nekk gis-gis boo xam ne daal ñoom jàpp nañ ni daal foofu euh, seen euh, suuf la te dañ caa fas yéene def ay projet kon jot na ña nga xam ni toog nañ ca te moomuñu ko muy université daal ñu roñu ba set wicc bala ñuy ñëw ñoom ak seeni jàjju ndax fa nga xam ne fa lañ teg seen tànk ñoom duñ ko teggi benn yoon wàllum politique euh, la ñuy ñëw euh, Massamba Diop nekk code nekkoon coordonnateur départemental république des valeurs bu président Thierno Alassane Sall moom démb dajale na ay naataangoom daal di démissionné ci bile kuréel daal nee na moom wax dëgg liggéey na ak ñoom te bokk na ci ñi sanc bile parti Thierno nu Sall nekk mag nekk itam xarit loolu waaye mu romb leader ci ñoom kon daal moom bis ni tey tekk na ndombal tànkam ndax ndax nee na fi ñu toll ci politique gannaaw ba natt seen bopp war nañoo mën a dem yaatal ngir nag ëllëg ñu bokk ci ñuy tabax ci réew mi. nee na sax moom euh, fan yi di ñëw ñeneen ci ñoom bokk ci ñoom dina ñu tekki seen ndombal tànk ci bile kuréel. waaye nag fa mu jëm ëllëg ci langue politique gi xamlewu ko ci boobu point de presse mu amaloon ak taskatu xibaar yi waaye li mu wax rek moom responsable zone nord boobu nekk membre cadre yi bokk ci bile parti nee na daal bis ni tey raxasu na loxo yi ba mu set wicc ci république des valeurs donte nag euh, la mu doon euh, jaayante ci élection yi nu romb yépp ànd na ca ak ñoom waaye moom day fasciné wute woy di ànd ak ñoom ci langue politique waaye nag la nga xam ni moo di jàppalante gi bàyyante xel gi ci wàllu respect wàllu dëkkandoo gu rafet ak taxawaayu Thierno Alassane Sall ci diwaanu Thiès moom Massamba Diop day nee na dañ koy sàmm di ko préserver waaye di ko tiitaroo waaye nag ànd ak ñoom ci politique moom dakk na. ba tey ci wàllum politique la ñuy des xam ngeen ni nag euh, Bougane Gueye Dany mu borom D-Media nekkoon itam euh, ku fas yéene woon a ci réew mi waaye dañ koo galgal ca parrainage. moom ma ngay wéy di sànni ay attaque nguur gu bees gile démb ma ngay wax ni Ousmane Sonko daal ndax mol jotuñu fusillé ko ndax nag euh, déclaration de politique général lu am solo la ci élimaan yi jëwriñu réew rawatina nag euh, ngeen ñëw yor alalu Sénégal ak ki moomeelam loolu daal Bougane Gueye Dany ma ngi koy fësal ci benn euh, contribution bu mu def mu nekk contribution bu satirique boo xoolee sax yenn ci membre parti Pastef yi ñu ngi koy tontu ci réseaux sociaux yi di ko ŋàññi ndax euh, kàddu ya nga xam ni ma ngi koy rotal di jëm ci seen boobu boobule. dañuy daw ca Daaru Xuddoos xam ngeen ni nag jamono bëlee amoon na nag euh, lu doy waar lu amoon ci euh, entreprise de beton boobu di Duyaan ñaari chinois ak interprète di doomu Sénégal téewoon benn employé ab chauffeur. doon ko malmené doon ko nag ci suuf si ngir fas yéene woon a foqat ñi cent trente millions ko fayoon te moom Ibrahima Fall moom mu fas yéene woon a dem nag ca fële ca yoonu euh, nootu guy jama ca dëkkam doon tabaski ji gaayeen ni ko nag dañuy foqat ñi li nga yoon ndax boo signé doo ko demee muy xëccoog ñoom ba yooxu ci vidéo bi ñooñu nag gis nga ba nu xëyee euh, ca ngoon nga leen leen defeere ca gendarmerie bu Mboro ba nu xëyee nañ ñu daal di leen envoyé parquet ba nu ñëwee jotuñoo wax ndax procureur daf leen a def mandat de dépôt ñu wuti ca kaso bu Tiwaawan ñoom nag doon nañ leen taxawal ñaar fukki fan ak juróom-benn di ba ca tribunal ba waaye seen boobu procès yi dañ ko renvoyé ba ñett fan ci weeru juillet ñu xam fan la war di mujjee ak ay gëtam ci ñaari chinois yile ak doomu Sénégal bi di wuyoo ci turu Ibrahima. moom itam mu def lu doy loo xam ni daal wax dëgg àdduna bépp ña ngi ko doon naqarlu rawatina nag ñaay yewwoo ca zone des Niayes moo xam mbooro la wala arrondissement bu Meewaan dañuy daal di jàll nag ci li nga xam ni moo di euh, politique ba tey ca diwaanu Sigicoor gis nañ ni daal di Jibril Sonko moom moo wuutu euh, président Ousmane Sonko ci boobu bopp mairie démb nag lañ ko tabb préfet ba daal di koy installé. moom Jibril sonk moomu ma nga doon xëccoo ak soxna suñuy wax ay Bodian Alassane Diédhiou ak euh, Bassirou Koli waaye moom moo mujj daal di nag euh, jël ndam la ñu ni nag Jibril sonk moomu mooy deuxième adjoint au maire ba nekk itam boroom xam-xam boo xam ne daal dafa yëngu ci wàllum économie internationale ñu ni sax dina wasaare ay cours ca daara jooja nekk ca dëkk ba di université Assane Seck waaye itam moom Jibril Sonko moomu ñu ni daal ku yàgg ci Pastef la ndax bokk na ci cadre Pastef yi foofu ci diwaanu Ziguinchor waaye itam mu bokk ci ñi nga xam ni ñooy lal projet ba ba mu toll fiile ñu ni nag moom Jibril Sonko moom ma nga fekk baax ci diwaanu Ziguinchor waaye ginnaaw ba mu jàngee daa dinay at mi la nga xam ne moo di ENA ba nekk nekk inspecteur trésor yàgg ca itam lu toll ci fukki at ak juróom moom Jibril Sonko moomu nag fas yéene wuutu Ousmane Sonko ngir nag euh, gën a mën a yeesal bu baax a baax aw yoonam te itam projet yi président Ousmane Sonko daal di bàyyi ba tax mu nekk ci nguurug Sénégal moom mu man ko wéyale foofu ci diwaanu Sigicoor fal gi nag euh, mel na ni daal consensus am na ca ndax da boo xoolee li ëpp ci ñoom candidat yi ñoom ñépp rek ca partie Pastef boobu la ñu bokk ñu daal di wax nag euh, lu soxal li nga xam ne moo di njàng meeg njàngale mi ci jongante baccalauréat atum 2024 gis nañ ni daal ay fan yu néew moo ca des gune yi daal di dem ci jongante boobu nga xam ni diplôme bu leen ubbil la njàngum daara yi kawe yi waaye gis nañ fan yi daal ci diwaanu Thiès li nga xam ni moo di causerie yi bari na fi loolu ci wàllum philosophie ak littérature ay euh, bonne volonté ak i professeur di ko def ngir dimbali euh, seeni doom seeni rakk ngir nag ñu mën a am ndam ci yooyu jongante ba tax na daal euh, causerie philosophique yi moom bari na loolu ci diwaanu Thiès rawatina lycée yi gis nañ ni sax am na ci lu Thierno Alassane moom moomu daal di fàggaloon élèves yi Thiès jëm nag ci seen waajal bu baax a baax yi lay jongante ñu daal di jeexale mbokk yi ak euh, parti euh, bii di benn coalition bii di Benno Bokk Yaakaar ñoom fa yéene noo amal tey jile ab jàkkaarloog taskatu xibaar yi wax nag ci seen ëllëgu parti ak situation politique bi fu mu toll ginnaaw nag député Yewwi Askan Wi ban ko defee doon ŋàññi règlement intérieur bu assemblée national Benno Bokk Yaakaar dinañu ñëw ñoom itam tey ci àjjuma ji wane seen position ci bile sorti waaye seen ëllëg ci langu politiku Sénégal kon loola ca kanam lay doon ca diwaanu Ndakaaru mbokki li mu gënoon a fës ci xabaaru bés bi amoon mbégte doon leen koy faram-fàcceel di leen wax lu jiwe jeexul jugu fa dañuy joxe rendez-vous ak euh, altine ak yeneen jotaayu xabaar ci suñuy plateforme jërë ngeen jëf di leen ñaanal weekendu jàmm ëllëg ñu ñëwaat ngeen baal ñu di leen ñëwaat ëllëg ci seen xibaaru bés bi ci samedi gi jërë ngeen jëf